25 milliards de, de, de, le chef de l'État. Mais aussi en précisant au départ que 35 milliards le nous Mais 25 milliards de nous le ministre bi ñew dégg nañ ko ñun ñëpp ministre bi ni mu lancement bi ba kenn ku nekk si ñi teew portable 150 000 mais comme nous ko c'est pour, dans un premier temps, fanweri djouni artisan. Nous sommes Le ministre de l'Imoire Il y a 25 milliards de taux global. Et quand on avait recensé, on avait recensé globalement 183 000 artisans, 650. Mais quand on a tamisé, effectivement, c'est la dégainée. 160 000 ans, man 000 ans, mais comme nous, nous ko vraiment le président de la république parce que nous, au niveau de l'artisanat, nous ak fu mu c'est notre sentiment parce que ay a des professionnels de l'artisanat. Nous sommes tous les gens kon suñu demee ba tey jii et après PEJA bi parce que aussi na ngeen xam ni PEJA bi 7000 artisans la ñu fa la ñu fa enrôlé kenn ku nekk jot na 150000 man damay kilifa ci secteur bi ba nga xam ni si fii ñu koy waxee 95 pour cent artisans yi nga xamee ni répertoire nañ ci PEJA bi jot nañu kon tey ji su état bi yëkkatee 150000. parce que yéenee jagale artisan ya nga xamee ni ñoo bindoon si fond de résilience bi duñ def lu sant